waa donc euh, maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp damay wax rek nan la cérémonie bi di deme cérémonie bi après dinaa jox njaay mu wax ñu jox kii nga xam ne moom la fi délégué de quartier teg muy Ablaye Mbengue mu wax après ñu jox moor mu wax donc man li may ubbee mooy damay gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm nag njaay njaay mii boobu ba léegi heure bu ne ñëw na fii ci man heure bu ne woo na ma grand fekk ma fii ñu dem ma taal moto bi ñu ñëw dem SDE maa moom dugg fu nekk génn mu def ci lu ne di jokkoog moor mi tout le temps di ma rendre compte ba lii yàlla def mu def ko donc lii itam boo gisee ma def ko fii mënu naa dem sama kër ñu def ko mais defuma ko ki nga xam ne nii moo ma tax a ñëw fii muy Matar mais di sama xarit nu yaroondoo jaxaw nekk ay xale di ànd séq teraanga bu ne moo tax ma indi ko këram mënoon naa ko indi sama kër waaye it damay remercier moor mii moor dañoo xamante ci ni ñu xamante dañoo bokk xarit ñu bokk xarit di daje ci baaba sëy ñu xamante yàlla di def ñi may yóbbu colonie muy ARTP Mor ne fa nekk secrétaire général bi te man musuma xam ne Mor a ngi foofu musuma ko fa gis ba benn week-end ñu dem sali euh, so pop somoon somoon ci guddi gi nii gars yi woo ma di ma ko présenté mu ne leen kii ñoo dëkk sama xarit la ndax sama xarit ñoo bokk maa moom dañoo bokk xarit boobu ba léegi nag mu koy sàmm di def lu ne nag ci Médina Fall moom mi moo tax je tenais à ce moom mu ñëw fii yéen ngeen gis ko lu ne lay def ci Médina Fall gi kon Médina Fall de koo war a fay Médina Fall de koo war a fay moom mii ndax lu ne lay def ci Médina Fall fii lay jël mille nit fayal leen yombal faju di finance groupement yi di jàppale nit ñi ndox yi fii yëpp sunu facture un million cinq cent la facture yeneen yi euh, fii ci ginnaaw lycée bi ak euh, côté bi ne yëpp lépp lépp boo ko calculer ëpp na cinq millions lépp ci poosam la ko fay kon kii ñun dañ koo war a sagoo ñun waa Medina Fall Medina Fall la dëkk lépp lu mu xam ne lu mu xam ne euh, doomu Médina Fall soxla na ko de ciy ne kon nag waa Médina Fall war nañ ko xool bu baax ne ko jàkk xool ko xam ne kii bokkul ak ñi ne ci Médina Fall di fi ñëw ay timis di di di di di dem fajar waaw dama bëggoon ngeen xam loolu ci moom ngeen xam ko bu baax moor nag ñun suñu koñ baa ngi nii xaj na délégué de quartier mii bu jëlee moom mi nga xam ne sëñ Modou Lo moom la fi teg nañu kii bu ma fi nekkee moo fi ne bu ma fi nekkul moo fi ne bu ñëwee dina la wax li mu lay wax imaam nag day jégalu mu ngi ci ci dëj bi fii moo tax moom mu yebal ko ndax moom it ci ñi dar imaam la ci la bokk ak ak ak ak bamee donc euh, bu dul loolu mataar a ngi nii ak ñoom xalifa ñeneen ñi nag dañoo liggéey yeneen borom kër yi wàccaguñ ñoom Alioune Dieng ñoo ñëpp wàccaguñu donc vraiment bëgguma guddal ndax guddi na mais jàppal ne moor ñun ñu ngi lay gërëm bu baax man de personnellement sama xol sedd na ci yow waaw yow yàgg ngaa def lu baax na Fall du tey rek nga ko def du tey rek la nga def lii ci mid na Fall waaw du tey rek jigéen ñi dañoo sonnoon kam bi lañ doon roote oto bi bu ñëwee tey mën naa toog une semaine du ñëw ngay jënd ay bërigo ndox 750 benn bërigo ndox jëriñul benn kër dara donc ay ñetti bërigo ñeenti bërigo ngay jënd ça fait 3000 francs donc jigéen ñi dañoo yenoo yenu man dama doon am kersa surtout oto ndox bi bu ñëwee nit ñi di daw man damay am lu ma metti damay am lu ma metti kon loolu yëpp moo yow yaa ñu ko teggil kon ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal lépp loo bëgg yàlla na ci yàlla taxaw te yàlla dina ci taxaw ndax yàlla ku koy defal dina la ko fay. waaye na comme ni ko doyen waxee léegi bi ñuy dugg si du nuyoo la ñuy waxee lépp nag tàgge boo gis olof nee na dafa am jàppal ma diw. seen jàppal ma di soo bi ginnaaw yàlla ngeen ngeen tàcc ko baax muy grand Ndiamé Sadio mii la ndax ndax ndax ñaar moom am ñaar moom xam nga xam nga tey boo leen doo xool bi ñuy ñëw sax xaw ñoo jaawale mbedd yi hmm. kon ñun fi ñuy ñëw xam nga taxul ñu miin ko hmm. xamuñu ko miinuñu ko hmm. kon ñii ñu defal lii kon ginnaaw yàlla bu dul ñàmbe mii ak ñeneen xamuñu tur yi ndax mataar ñi ngi maa ngi ni di ko gis ko waaye bi ma dikk laa war a xam ne grand bi moom suñu wóoleeri baax la kon léegi li am solo mooy kii Alxuraan dafa wax ni wa naas fa yam ko sufil ardi yàlla dafa ba def nag mu bokk si ñi nga xamante ni bii dañoo am loolu li si des itam ñu ànd ak nga xam ne rakam la ñu bokk ndey ak baay mu sës si moom rëkk te Alxuraan dafa waxoon ne anzir asiratakal aqrabin waaye nag wax fil janaaxaka liman tabiaka minal muminin te politique loolu la mooy njëkkeel si say mbokk hmm. ñi nga xamante ni yéen a bokk mbir mi di ko liggéey te duñ say mbokk nga rafetal jëme si ñoom hmm. nga taggo sa euh, nga wàcce sa mbagg ba mën a ànd ak ñoom hmm. loolu moo ñu waral ak moom waaye macha allah ku ko xam Euh, comme ni ko xamee doom doomu Médina Fall fi la juddoo. Mm. te it am na lu bari loo xamante ni bii euh, def na ko fi. Mm. comme li nga wax léegi nag facture bi. Mm. xam nañ ko moom ñu moom lañ ko seqal. moom nag mu nekk koo xamante ni bu yàggoon bu nekkoon ko xawoon a xàddi la. noon ne nii waaye xam na. ndax yaakaar naa ko yéen ko wax seen bopp xëy na am na ñeneen ñu ngeen doon jëfal am na ñu ngeen ko yaakaar waaye daal bañ jëflantee yaakaar naa gis ngeen ne njariñ am na. gas nañ ñu dugg na ndox mi dugg na yéen ngi xeel si robinet yi wala déedéet leen loolu kon léegi mu nekk loo xamante ni kon sant yàlla la ndax it euh, xam nga ñu bari dañuy wax ni politiciens yi dañu ba ñoo bañ sax dañoo xaw a diaboliser mooy du ñu wax lu ñuy def waaye yàlla def nañ ñun sant nañ yàlla ba bokkuñu sa loolu xëy na comme li ko waxee la nag ndax li ñuy déggante bari na fi ñu joxante rendez-vous bari na lépp waaye duma ko wax lu dul que ni am na lu mën a teg si loxoom ndax kii bi mu waxee tim mu jokk kilifa gu mag gi yor Sénégal gépp kooku am ko ma ko booleel fii ba ma doxee lépp si la ñu ànd doxal loolu tim fakkiir bi tim ko xel un million yu teg lu bëree bëri la waaye macha allah taala te loolu lépp tey pour ndax mën a dugg fay nañ ko ba mi yéen ngi xel yi ndox kon loolu lépp itam yàlla nañu yàlla dolli xéewal tey it am tuk moom mii ginnaaw yàlla bu ko mënee daa am ku tax mu man ko ndax fa mu nekk tey ba ñu noomee ko ba mu man kani bu leen amee mu jël téléphone am ku mu woo boole ma loolu sox ko kooku loolu kay ginnaaw yàlla post bi ko président joxo tax ngeen ñaanal ko loolu baax président sant loolu si kon ñaan tàccu leen président lu si loolu ndax tey tuyau bi tey mi ngi am ñi ko bénéficié woo mi ngi nekk fukki famille ak juróom-ñeent te ñun Medina Fall ni ñu ko xamee kon fukki famille ak juróom-ñeent moom suñu kër yi mm. ku ñu ne dañu leen yéen dëkk ngeen moom mm. ñaar la nag dafa am ñoo xamante ne bi Tivaouane bi la am na ñoo xamante ne bi du Tivaouane bi mais dañ leen a jàppale pour ñu am mm. mu nekk ñaari dossiers yu bokkul la moo tax ma nekk ko yii nag mooy yi nga xamante ne bi ci la station bi jàll muy Alioune Thioune Matar Ñing mooy fi ñu nekk nii Mor Ndiaye faatu ñang jigéen ñi ay jàmbaar lañu de Goram Fa Goram Sall Yacine Faye Ousseynou Ndiaye Khalifa Dieye Pape Mbaye Ndiambe Sène Alioune Thiam Mandiaye Ndiaye Modou Gueye Pape Gueye Jama Seck abdu jaañ mbay Diagne Mouhamed Mbaye ak Ndeye Gueye ñii ñooy fukk ak juróom-ñeenti famille yi nga xam te ñoom ñoo bénéficié aussi loolu. te ñun ñii ko def nii tey guddul turu Ndiambe Sène bii xamu moom mi ma booleel. ma coordonné ko ku dul turu njàmbe seen xaw ma ko tey laay door a xam ganaa ñu ngi bee ma ña fekk si këram kon lépp li xar ba nag mooy li la wax la mooy nit day am njariñ day amal nit ñi tim njariñ ñi nit ñi njariñ mooy loolu am na loo xam ne la ko yàlla joxee nga juy ko xëy na mën ngaa dimbali nit ñi te doo leen xam kon ki ñi ki leen dimbali si loolu ba ngeen ko kon xamu leen ko kon dafa tax yàlla am kon nag li li waral loolu tim mooy ñuy dox digganteem ak nit ñi ak dox diggante nit ñi kon yéen waa koñ bii dama bëgg ngeen jàpp kii bu baax ku baax a ngi loolu loolu mooy wax ji. di sant yàlla nag bu baax wax dëgg yàlla mënuñu leen a fay ndax naxe bi bari na woor yi bari na chaque jour ñun ñoo ngi dem am na bis boo xam ne ba ma ñëwee ca kër ga ca buntu kër ga laa taxaw ndax guddee ñëw yàlla xam nañu nax ñu ñu ne su ngeen ñëwee su ngeen dee ñibbi ñu may leen ndox te faraas ki da ay naxi kese la. àdduna nag ki lay ki la nax ak ki la ki wax dëgg ñoom ñaan mënu leen a fay ñoo ngi yaa ñoo ngi lay ñaanal yàlla sa taxawaay bi ak li ñu defal ak millions yi ñu ci ñàkk. balaa at mee des yal na la yàlla may lu ko ëpp daraje yonent bi sa place boobu yal na ci yàlla def barke def ci sutura def ci xéewal gu yokk wax dëgg yàlla mën nga ñoo seetaan wala nga def ne say morom waaye defoo ko wilaay wallaay jërëjëf ñoo ngi gërëm nag ñambe seen nii wóor na yàlla ñambe ñoo ngi koy gërëm ndax ñoon tekk naa samay bagage ne ko man damay fay ñambe ne ma delluwaate ci biir kër gi ñëw nag suñu jàkk ji fële muy imam xam naa sax moom li may bëgg a wax ni dama koy ubbi rek mais moom ko bën a xam am doléance yoo xam ne dañ ko si bëggoon a dugal jàkka ji suñu benn vieux moo ñu ko mayoon war na lee depuis 2016 su ma jumul lañ ko ubbi woon daanaka suñuy ñaar dërëm ak suñuy ñett dërëm la dajale di jóg di daanu jàkka nag am ay manquement lu mel ni comme toilette lu mel ni comme ndox lu mel ni comme morgue maanaam li jàkka war a am yépp daal jàkka ji manqué nañ léegi nag coordonnateur mosquée bi sax moo waroon ñëw pour joxe kàddu yi muy Saliou Ba dañ ko bàyyi ci dëj ba moo tax mbeng mbeng ni ma nañu ànd daw ñëw pour bàyyi leen fële quoi mais bëggoon nañ sax jataay bi même bi muy ñëw maa ngi koy wax dañu ko waroon improviser jigéen ñi yëg ko góor ñi yëg ko même bu dee dimanche ñun ñu ñun ñëpp ñu mobiliser defal la benn mobilisation bu mag maga maga a mag sànq bi may ñëw maa koy wax mbeng mi mais comme dañ ko improviser aussi nii rek la mën a demee di la wax ne nag li ñu fi doote jéggi ci ay kàddu doy na sëg man taxul ma mi la trop mais sa frère bi xam naa ko parce que yaakaar naa yéen ak yàgg ay mbokk ngeen voilà yàgg sama promotionnaire la ak ah, Pape Seck ak euh, comment dire encore le directeur bi bi ñu mujjee nommé comment il encore ki ngeen dendal ak ñoom Pape Seck kër Mbaye Stéphane Mbaye samay promotionnel ñu doon foogandoo yàgg na boobu man demaguma Dakar bi may ñëw sànq laay waxtaan ak euh, Diallo sax ci ci armée li ba mu naan ma moo yàgg ñoo bokk nekk yaa quoi vraiment on vous remercie beaucoup di la remercier wax ni wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal balaa année bi ñëwaat ñu dégg monsieur monsieur le ministre loolu la ñuy ñaanal yàlla monsieur le ministre te na ko yàlla li daal moo nekkoon kàddu yi. ci leen nuyu ci kàddu imaam lii monsieur Ba wax moo ñu ërwee ci suba ndax man ci fajar lañ ma yee wax ma ko ma dem yóbbu ko hôpital door dikkaat ci kër gi bi may demaatee bay dikk la xabaar bi am booba ci lañ nekk lii ba wax itam noonu la mbir mi demee man suba laa ko jàppoon ci wax ji dañoo déggul wax suba laa ko jàppoon ci gàttal daal bañ a guddal ndax guddi na lii ki wax Saliou Ba moo waroon a ñëw tey waxaw ndax mooy coordonnateur u jàkka jeeg lépp daal mooy moor yow dañ lay bàyyeeg sunu borom ca di la sant di la gërëm lii ñu wax nag ñi xamul koy wax waaye ñun ñii fi yàgg xam ci lu bari xam nañ moom day fàtte fekk na ma ca buntu kër papaam jël ma ci otaam nu ànd dem ba ca kaw mu wër otaam ak courant bi nu wër ba àggal mu ne ma mbeng mu naa mu ne ma fii yëpp def nañ programme pare dem leen toog xaar moom mii nu wër maa moom dalee ko wër ba ca kaw ba daaray bubu ca kaw ba wëlbatikuwaat ñëw ci kër gi mu wax ma loolu ba ma ñëwee mu wàccee ma ak buntu kër papaam gars yi ne ma foo ñoom sàll ne ma foo demee ma ne ma na ak ngoor ko affaire courant bi la ñu xool nu tekke semaine am na lu nu yore fii ci koñ bi ñu ne nan jéem seet ba xam am ku nu fi dig neuf poto ne bi sàngam daañu ko sampal lii euh, soxna su mi wax yëfee nekk France daal di xëddeen am na bis keroog bañ may woo fa ma ne sore ñi ne ma diwoo fi ne may leen du ma ñëw tax kooku lu ma la wax du dëgg nu topp ca loola bañ dig nu ne dañuy lijjanti poto yi pour jéem a seet sax nu jënd ay quelques poto ba keroog mu yàgg yàlla dogal am kuñ ma booleel ku bokk ci yéen kooku ne ma euh, Ablaye danaa la boole diw boo xëyee demal fa moom boo waxtaanee moom lu mu la dëgg la ma xëy fajar ndékkiwu ma dem ca moom waxtaan ak moom ne ko man di diw ma feewal mais nun daal danoom problème ma dina fal nangam wax bàggal mu ne ma danga may xaar sa booru kër maa ngi ñëw léegi sans bañ day métti damay dem bi dindi ko mais maa ngi ñëw nees ki si 8 heures mooy mu woo ma ma ñëw ànd moom tax mu ne ma sëñ bi demal nga too photo fii balaa am une yëpp dina wàcc muy la ma Mor Mbaye waxoon ca kat sëñ Blaat nee nit waxi daawam ak waxi renam suñu àndee ak jëfi bu ñu àndee jàpp nit ko kon Mor jëf la nga nu waxoon nun de ci loolu gis nañ ko noonu nag noonu nag nga war a mën a doxe ndax soo doxewoon nul noonu kon dana doy waar lool kon daanu jaaxle nun ndax lii maa su wax euh, koñ bi fi buñ fi yorewul itam am na lu bari duñ fi xam ndax duñ fi jóg tey jii lii moo tax waaye fii ni bu doon lii tey jii noo nga sa buntu kër ci Pape Sall moom fa lañ toog ba julli timis julli gee a ñibbisi kon am na loon xam ci yow kon moor jërëjëf Njaay jëf yow yow mi ànd ak njàmme dox ko ba li am jërëjëf xam ne daal ñu ngi leen sant ci kàddu mag ñi ci koñ bi ci kàddu imaam gi ci kàddu borom kër yëpp xëy na ñëpp mu ñoo wax mais sant nañ leen bu nañ la bu baax di sant kon naat ñi nga àndal ñëpp xam ne lii kat lu nu tëwoon la ndax jigéen ñi dugg nañ fu ne waaye nun góor ñi dugg nañ fu ne mosunoo toog de ndax àdduna ku fi ne foog nga def fi àdduna ndax teew bee njëkk dem ba dem ba ca kaw lanu ko moyen daanaka politique la woon kii ko fi ñoon fay ko fa waaja si si ba eh, xaadim kebe la ko àndaloon ak ba jëm na le nga ñëwat a defit fi lii indi fi courant bi kon moor jërëjëf lii nii lamp yi tàkkee ndox mi xellee ko yàlla na nga tàkke mel nit soroor bu bëccëg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax lii ba wax nag nun ay taalibe leen suñ soxla fu mu toll yi dañ koy joxal kon jàkk ji fii ne def nañ fa mbaar moo xam ne daanaka tënoonu fi mu ne dem nañ ba àgg na def nañ kii pare mais def ko mbaar fii nag mooy suñu problème fii dañu yoon bu ñu tabaskee fa duggaat ci dëkk dëkk dëggaat ci kër yi majjal jigéen ñeeg ñëpp ginnaaw ñëw fi rek nooy nan la majjaalee lépp lu ñu ci def ci loolu daal laay tënkee wax ji kon moor jërëjëf saaka moom laaw xayran asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi maa ngi am mbégte teew fi tey euh, ci jataay bi parce que jataay boo am solo la xam naa ni bala maa commencé damay présenté wu man maa ngi tudd Alioune Badara Niang nekk secrétaire général conseil de quartier bu Medina Fall hmm. Euh, jiite woon comité développement local bi nga xam ni lépp luy développement dëkk bi ci sama loxo lañ ko tegoon. case foyer bi ñoo ko fi indi. Hmm. lycée Medina Fall. Hmm. poste de santé 2 bii ngay gis. Hmm. plateau multifonctionnel. lotissement bii ngeen nekk tey ñun ñoo ko xeex ba mu am. bii ngeen dëkkee tey Medina Fall extension. poste de police Medina Fall ñun la projet de de développement yi ak projet microfinance projet d'alphabétisation yëpp. kuréel gi nga xam ni moo ko doon saytu pour mu xëcc ko mu mën a ñëw Médina Fall yàlla def man lañ jiitaloon ci bopp ba di sant bu baax a baax ñi ma ko àndaloon parce que liggéey ba lépp rafet na njàmbi ñu ngi lay nuyu bu baax euh, parce que xam nañ sa taxawaay ci dëkk bi euh, nekk nga modèle nekk nga exemple euh, nekk nga influenceur boo xam ni da ngay influencer mais dans le côté positif waaw non xam nañ ko bu baax mu nekk koo xam ni man dama mus a nekk femme bien que sax miinu xaw xaw musuñu tase physiquement xaw ma ko man maa ngi doo gis nii. waaw waaw damay dégg sa intervention. ci antaxu Médina Fall. absolument wax nga dëgg wax nga dëgg ko lool te musuma laa gis. wax nga dëgg wax nga dëgg merci beaucoup. merci dinañ fasante kóllëre bu baax. incha allah di rafetlu jataay bi. parce que euh, Mor pour ma wax ci moom sax day jafe. Hmm. Euh, parce que sëñ bi wax nga ko léegi. Euh, xam nga dafa am ñoo xam ni boo ko amee ci biir communauté. ñëpp leen war a ñaanal ñëpp leen war a jàppale ñëpp ñoo war a vraiment fu ñu nekk di di di di di di di leen soutenir ci li ñuy def chaque fois bu ko yàlla dimbalee mu nekk ci position boo xam ni mën naa xëcc pour indi ci quartier bi man damay dem sax ba damay jaaxle parce que chaque fois daf may woo téléphone ni ma grand ban côté nga yaakaar ni fa lañ war a mën a jàpp boo ko nee telle zone amul ndox wala telle zone amul courant mu di naa indi temps de lampe bërki démb rek la moo woo mm-hmm. ni ma dinaa leen indil plus de cinquante lampadaires mm-hmm. yu ñu war a implanté waat ci biir dëkk bi ci zone yi nga xam ni dañu xaw a lëndëm mm-hmm. comme ni mu ko defee fii tey indi fi tuyau bi noonu la ko defee ci zone yëpp case foyer bi moo leen daan jàppale di leen di leen di leen soutenir financièrement indil leen fa ay plateau euh, solaire pour ñu mën a am courant ba noppi indi leen ay ordinateur lycée Medina Fall moo leen jox plus de cent table banc leen ay ordinateur jox leen ay imprimante jox leen ay photocopieuse ba noppi journée d'excellence yi xale yi doon def bu yàggul moo ko financé intégralement mutuelle de santé bi nekk ci dëkk bi moo jënd 1000 carnet muy muy 3 cinq 500 mille mu ni wax misaan ni ko seetal 1000 personnes junniy nit yoo xam ni mënuñu seen loxo jotul seen di gannaaw pour ñu bokk si mutuelle bi ngeen recensé leen dugal leen ci mutuelle bi carnet yi maa koy jënd maay leen di wutal bureau bu ngeen nekk may équipe bureau ba école Medina Fall bi ñu amee problème ndox bi ñu gasee teen bi moo fa indi machine boo xam ni mooy pomper ndox mi pour ñu mën koo tas ci biir école bi yëpp moo tax école Cheikh tey non seulement am nañ ndox mais dañuy wut sax ay jardin léegi di di di arrosé loolu loolu loolu loolu loolu Mor moo ko def ñun ñii tey dëkk bi plus de cent étudiants yoo xam ne ñu am nañu bac ñii am bac plus yóbbu na leen dafa leen ay ñu leen def ay formation yoo xam ni boo ci parent bu ko doon fay di nga fay lu jigee deux millions pour formation xale yooyu te xale yooyu formation boobu ñaw na ñaw goo xam ni ñoom ñëpp bu ñu génnee dañ leen di embauché kon loolu ku la ko defal jël sa doom yóbbu ko euh, fexe ba mu am formation bu mel noonu nga xam ne bu bu génnee day liggéey mënal boppam mënal ay parent mënal ay mbokkam mais kooku mënatoo ko fay loolu loolu dafa nekk asaka rek ci li mu ci dëkk bi ba noppi Euh, Covid bi bi mu amee demoon laaj lycée Médina Fall laajal poste de santé Médina Fall 1 laajal Poñen laajal poste de santé ma Serigne Mor Talla Fall laajal poste de santé yi fi nekk yëpp Kër Sëy moo leen di yóbbul euh, produits yi ñu doon raxasoo moo leen di yóbbul masque moo leen di yóbbul gant moo leen di yóbbul eau de javel lépp moo leen koy fournir moo leen koy fournir bi Covid bi ñëwee ay ay tonnes de riz la jënd cette population yi gën a néew doole léeg-léeg mu ni yóbbul leen ma joxal leen ma kii tant de sac de riz leen ma kii tant de sac de riz yóbbul leen ma lii tant de sac de riz mais loolu euh, ku koy def yàlla xam na ni lii mu def nii ñun ñoo ko obligé sax nii ko yow da ngaa nekk ci da nekk ci ab système ñu wóolu la jox la tey poste boo xam ni dafa nekk poste boo xam ni ñëpp ko bëgg lépp lu jëm ci lu jëm ci exploitation pétrole ak gaz ci Sénégal Macky Sall moom la wóolu dénk ko ko mu nekk post bu stratégique boo xam ni kenn du ko dénk koo xam ni wóoluwuñ la parce que dafa nekk post boo xam ni boo fa nekkee boo dee kuy nangu guerre rek mën ngaa nekk milliardaire parce que ñëpp lay soxla mais xam ci moom ak taalibe xam ci moom njub xam ci moom ngor président saytu ko ba avant mu koy jox post bi dafa am ñoo xam ne ñoo ko joxoñ ni ko kooku boo ko joxee li nga ca bëgg da ko am waaw mais am na ñeneen ñu bëgg post bi waaw léegi moo tax ma ne ko nag. bu fekkee da nekk ci position boobu booy def nag ay ay ay teraanga di jàppale population bi mais il faut que population yi xam ni. Euh, jox am na fu ñu la teg mais euh, da joxuñu la poste boobu rek nga toog. Mhm. croiser les bras mais yaa ngi jàppale population bi mhm. lu ëpp sax seen njort. Mhm. moo tax ñu ni ko nag léegi vraiment am na gestes yoo xam boo ko defee tamit fexeel ba population Médina Fall au moins xam ko. waaw moo tax bu yàggul bi mu joxee euh, mille mille carnet ci mutuel de santé bi ñu ne Mbissane organiser leen fête nit ñi ñëw ñu xam ni euh, Mor Ndiaye moo leen defal lool kon moor vraiment euh, mënuma citer li nga def lépp waaw ah junni junniy carte ah, junniy carte ah, euh, parce que 3 millions 500 la leen jox pour loolu jëndal leen équipement yëpp bureau yeeg chaise yeeg la nekk ci biir chaise bi yëpp moo ko jënd kon boo calculer da ngay romb 4 millions dem. mu jëkkati ko jox ko ci ci joxe ko pour pour population yi mën a faju bu ñu feebaree mën a faju très bien lu amul seede baaxul ah, kon euh, kon euh, Ndiamé yow leader nga ah. yaa nekk ci gox bi euh, moor ñun ñëpp nañ ko jàppale vraiment man loolu laa nit di wax mm. parce que bu fekkee ni kii bu sa bët xonqee mm. moom ngay yaakaar set man bu yàggul ñi nga xam ni ñoo semaine Medina Fall mm. bi ñu amee Euh, problème bu bu war a tabax benn classe mooy bu ñu def mu ne la ci fomb. Hmm. mais dañ ma woo ni ma grand fexeel ba moor dugal ci loxo ba ma ko wooyee enveloppe bu mag la ma jox ni ma demal joxal ma ko proviseur. Hmm. équipe bi ñuy def gardiennage ci biir Médina Fall. muy brigade de sécurité. bi ñu demee ba am problème. Hmm. parce que dañuy doog a demaare ñu woo ma ni ma boo ci jàppul du baax du ñu mën a fay ñi garder. ma gis ko wax ko ko mu indi enveloppe boo xam bi ma ko joxee dama tiit keroog ñooñu bi ma ko joxee dañoo fay ñiy liggéey ñëpp. moo ko def. te kenn du ko dégg. ñun ñoo ko mën a wax ñun ñi muy jaar ci suñu loxo mu ñu koy jox bu ñu dee gor il faut ñu wax ko population yi moo tax vraiment ñu lay ñaanal bu baax yal na la yàlla jàppale yal na yàlla aar yal na yàlla yokk say xéwal parce que xam nañ ni yow boo amee rek ñu am parce que loo am bokk nga kook waa Médina Fall loo am bokk nga kook say mbokk ñëpp a ngi lay ñaanal nag waaw mais loolu bett ñu parce que euh, euh, képp ku xam ku xam sëriñam ku xam sëriñam nga xam ni euh, sëriñam doomu sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam ni mooy taawu sëñ Touba moo jur sëriñam di rakku di rakku gaynde Fatma nga kooku amul dara lu mu daan def lépp lu muy def moor la ci diisoon ku xam ku xam kër sëñ kër sëñ Moustapha waaw ku xam ñooñu ni ni ñu ni ñu dëggoo ak ni ñu gore ak ni ñu bëgg nit ku dëggu nga xëcc nit moom daawul def politique eh? sëñ bi moo ko proposé rek ni ko jàppaleen Macky Sall waaw loolu moo ko ci dugal de mais musul def politique ah, ingénieur la ah, ah. ingénieur de formation la yoroon postam di ca tedd mm-hmm. mais comme ndigal lañ ko jox mm-hmm. loolu moo ko ci dugal mm-hmm. kon mais euh, rëccuwuñu li la sëñ bi joxoñoon président Macky ni la jàppale ko parce que fi mu la teg te yaa ngi ñuy jàppale bu wax kon daal foofu laay parce que vraiment mënu ma wax li ma xam ci moom yëpp <laughs> foofu laay yemale ñaame di la sant bu baax di la wax ni daal jigéen ñi eh. mi ngi noonu dénk naa leen ko jàppale leen ko bu wax Ami Diop mus na leen ni ñoom ñii xanaa yàlla moo yëgale yéene muy sama doom ñëw ni leen jàppale leen ki may jàppale bu ngeen jàppalee ki may jàppale ndox mi day daal di dugg maree ko ne ko ami dag maa bëgg a xeex ndax boo nee sa baay mu dugalal leen moom lay ñoom lay njëkk a dugalal eh, gis nga mbiri yàlla njàmme mi kenn gënu ko mbeng mi yàlla nu boole de yàgg na moor maag jabaram ma yar jabaram dara mu sañaaw suñu diggante mbeng mii bi may tuxu si nii xalaat bu rafet bi ma am ak jom gi ma am ak ngor gi ma am ak fit bi ma am moo ma ko may moom laa ñëw ci moom ni ko mbeng mu ma xaw ma kan kirtinding la defoon ci kaw na koy ñëwal bu luyeeti xaalis ci poosam junni yu bari jox ma ni ma ñëwal boo ñëwee nga dëkk man ko yaay ma jëkkër fit bi ma may moom laay am fit woowu moor moo ko eggale man du ma wax caaxaan wallaahi lal azim ku dul moor mi doo ma tax a fa ma taw kii moom sama rakk ñoo bokk baay suñu bàyyi ba ñuy xale ba yàlla boole leen moom leen ñu boolewaat leen ñu ufante kon kii moom moom ñoo bokk benn baay gis nga moor mi bu nu ko jàppale duñ ko rëccu wallaahi lal azim euh, am na ci loo xamante ni sax mën naa leen ko wax de xam nga dakaar gi ay maçon kese la ñuy installé kese fa ne bi muy liggéeyu këram ca dakaar fii la jël seeni ko liggéey kon nga xam ne ki bëgg na Médina kii ki bëgg doomi Médina Fall tekki nan jàppale Mor mu jàppale ñu. bég naa lool nag tey ci ñëw bi ma ñëw fii eh, fekk fi sama mbokki kese ndax nag ku ma fi xàmmeewul nit bu ñu waxtaanee gindikonte ndax bi ma ñëwee léegi lañ ma wax ni mu demee ak sa sa soxna xàmmeewu ma ko waaye ñoo yarandoo eh, kon famille yi séq lu bari mat Médina Fall nag noonu la mel benn famille la benn kër la Eh, daf fekk nag nii eh, xëy na nit moom bu defee mën nañ ko de war nañ ko wax jërëjëf waaye koo xam ne moom dangaa ngaa jàpp ne li ngay def warugar la eh, doo ci séentu jërëjëf ti warugar nag mooy li nga xam ni boo ko defee waruñu la caa gërëm wala bokk buñ la ci gërëmul it war waratu war a ku caa séentu maanaam te boo ko deful dañ la war a xas loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ñu war ñun suñu taxawaay ci karti bi nga xam ni moo ñu juddul fi leen yaroo te ku xam quartier bi xam ni na mu daan doxee xam naa ne daraa ngi fiy des ba léegi xale bu dëkk ci koñ sab yar kenn ku ne am na ca yoon ndax boo génnee ci mbedd mi def loo war def ña ngay njëkk a dajeel ci kilifa ñoo lay jubbanti kon loolu bu fekkee da nga yaroo fu mel noonu mag moo fa gis rek jàppal ni. Eh, ameel nga ko njukkal ameel nga ko bor boo xam ni eh, dina jafe nga fay ko kon lu ñu fi def ab bor bu ñuy jéem a fay la boo xam ni wóor nañ ni mënuñu koo fay ndax nag jaar-jaari xale yoon wi sori na bari nay pakk yu ci nekk ak yu demee noonu kon ku yàlla dimbali ba nga mucc ci yenn yooyee rek mooy fangane am na mag ñu la fuug ñoo xam ni eh, ña nga la doon taxawu ci loolu ci seen taxawaay ak seen nañ mel mag dina dem sax ba seen gi nga koy seen képp dina tax nga xoolaat na nga daan def ñun ci loolu la ñu weer kon quartier bi dañ leen a amee bor bu rëy boo xam ne wóor nañ ni mënuñu ko mënuñu koo fay moo tax it ne ko sëñ Bada waxee léegi fu ñu nekk fu nekk suba ba ngoon sunu sunu waxtu dañ koy xaaj lii bu ñu ko defee ci liggéey bi leneen li ñoo ngi xool feneen fu ñu mën a lijjantee loo xam ne dina ñëw ci quartier bi pour jariñ mbooloo mi fi nekk loolu moom mooy suñu taxawaay lu ci suñu borom sottal ñu sant bu baax lu mu ci sottal li ñu xam ni ñun lañ ci lañ ci war ci sabab lu def nañ ko waaye loolu moom lu doy loo xam ne mën nañ koo partager ak nit ñi amaa nag di ñëw di diggee ak di jël engagement loolu moom bokkul ci lu ñuy lu ñuy lu ñuy faral di def ndax suma sëriñ bi ñu doon tudd léegi bu baax bi waaw di doomi gaynde Fatma gaynde Fatma doon wax ni wax moom ñaar rek la loo def ba noppi ak loo looy waaj a def li nga def ba noppi mu munu jërta wax ndax wax wax wax ja dina ko dina ko fésal jëf ji dina ko fésal kon comme jëf nga ko ba noppi li nga xam nag danga nga koo namm moom it jërta wax ndax boo ko waxee wax gi nga koy wax mën naa tax suñ borom nattu la ba doo ko man te yàlla moom day nattuwaate loolu ku ne xam na ko kon loolu bokk na ci li tax eh, ñu taamu len lu ne dañ koy saytu ba nga xam ne daal buñ koy tuddit daanaka nañ ci am lu lu ñu xaw a wóor ñu dog ko wax moo tax du ñuy man di liggéey mais daal euh, ñu ngi kontaan bu baax ci liñ fi fekk muy li ñu xamit nag muy mbooloo mu bennoo di àndandoo di defandoo seeni soxlaat ñu cay ànd di wut lu ko saafara loolu mooy li fi nekk di dëkkin wu rafet boo xam ne nii euh, niñ koy faral di waxee rek màdd na moom neex naa dunde neex naa faatoo ndax ku fi faatut gis ni taxawaay bi nit ñi taxaw Euh, dinañ la wan loo xam ne nii dina dina kawe sa njor dinañ la féete foo xam ne mënoo faa féete sa bopp kon loolu la ñuy gën a soññaat suñu bopp rek di ci soññ ñëpp ci jàppalante bi ci dimbalante bi dinañuy faral nag di sant nit ki ndax moom lañuy wax ni moom moo def lii waaye fekk na am na ñu ko ci gën a sonn fuuf pour loole mën a sotti lii bu ci sa njàmbe mii taxawul woon mën naa bañ a am mbaa mu dem feneen lu mën a doon it da nga ko da nga koy wax ndax moom moom moom waaw lu fi war ci koñ bi maa ngi koy ma ngay lijjanti fuñ fan la ko mën a toppatoo ndax bu ngeen am loon ku mel ni moom it xëy na bu ma amee pexe bit mën naa dem feneen ci koo xam ne ni moo gën a farlu mais na ngeen xam ne moom farlu na ci liit ab xëy na lenn dong la mais leen ni muy lijjanti mu ëpp loolu lu ci seen soxla rek xam naa ne mi ngi ciy taxaw Mamadou Ndiaye mi nga xam ne tamit moom moo doon ànd ak moom di ko dox moom it day kenn ci man koo xam ni lu ma fi yëkkati lu nekk man mënu fee nekk nekku fi sax féetewu fi kon lu ma fi yëkkati ci moom lay aw ak sëñ Badañaa mi ak Souleymane ñoom ñoo koy topp di ko dox Bada nag moom sëñ Alioune Badara mii doon wax léegi man dama am kersa lool ci sama diggante ak moom ndax day sama mag di sama kilifa ba pare nag xar tànk tubéyam ci luy nga xam ne maa ngi koy yëkkati rek moom mu yëkkati do mu mu jóg ca dox ko kon ku kii mënuma ko fay kon koy seedeel di sàkku dañ bàng ngeen ñaanalal ma ko taxawaay bi gën a dëgër te it loolu it la tax mu koy def du sama jëmmi bopp kese njariñul quartier bi la badawa ñu ko xamee ba léegi ci njariñu quartier bi la nekk depuis bañ nekkee tout tànk ñun ñii ñoom ñu féete ñu mag lu nga xam ne moo fi doon dajale ay xale ay ASC yii ak yooyu ñoom ñii ñoo ko sosoon di dajale nit ñi di waxtaan di may xale yi meddina fal fit ba nga xam ne complexe bi doon am ci ñun ci jamono joojo ñu daan wax na moom boole wuñ ko ci dara ñoom ñoo fi dindi loolu ñoom ñoo ci xeex ba dindi ko fi kon ñoom kenn mun leen a fay te it soldaar lañ yoo xam ne du ñu tekki seen laxasaay boobu ba léegi ñu ngi ci te tey jii lañ gën a feddali seen laxasaay gën a taxaw ci soxlay askan wi limal na leen lim fi liñ fi def yëpp xëy na di ngeen koy romb mais lu ngeen fi gis lu ñu fi def ci infrastructure boo xam ne état ko fi indi muy fu ñuy jàngee wala fu ñuy fajoo wala yoon yu ñuy jaar ak yi demee noonu ñoom ñi ñoo ko dox ba indi ko ci quartier bi kon ñoom seen taxawaay wax dëgg yàlla euh, am na solo trop amel nañ leen jukkal bu rëy rëy vraiment daal ma leen di sant ci taxawaay bi ngeen taxaw nogay <laughs> xam naa ni bada bada boole na ma ak yow <laughs> waaye <laughs> ñu ngi leen di sant daal bu baax di di rafetlu daal di ngeen taxawee dégg nañu yeneen yi fi jib yëpp euh, lenn luñ ci man rek dinañ ci dox bu soob yàlla euh, lu ci sotti bu boobaa dinañ ñëw nii ñu ko defee ni leen mi ngi nii euh, di terminer nag di jaale kilifa gi nga xam ni wàññeeku na fi ci koñ bi xëy na moo tax jataay bi demee nii mu demee ñu ngi leen koy jaal tey ñaan yàlla suñu borom mu defal ko mu jéggal xare ko ci àjjana gën a kawe moo bépp jullit bu mu fa fekk ak jullit bu ko fa fekk ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah